tey buñ ne mbindum cheikhul xadim euh, lu nekk danañu dégg léeg ñu di ko ci wax ci wàllu xayma gi bari na euh, bari na lool ba jéggi dayoo Euh, est-ce que mën nga ñoo dellu siwaat wala ndax mën na noo xam euh, euh, maanaam mbindum sëriñ bi naka la tool yow mi nga xam ne yaa nekk daara kaamil yàgg ci yëngu ci xam-xam waaye yàgg yëngu tamit ci li nga xam ne mooy xasida yi alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala laaj bu am solo la hmm. ndax laaj bu ñu faral di tontu la ci barab yu bari te tontu yi ñu ciy tontu ñaare day wuute lool ndax ñiy tontu ñaare danañuy wax ay lim lim sàngam ñenn ñi dem ba wut ay lim yoo xam ne dañ naan nangam la toll waaye it am ñoo xam ne ñoom du ñu tudd ay lim dañuy tudd li nga xam ne mooy xiima bi nga xam ne moom la xasida yi am waaye jëmmi na mu toll moom ki ko bindoon rek lañ jàpp ne moo ko xam. Ah, ki bindoon xaside yi. Ah, ah. moom képp képp lañ jàpp ne moom képp moo ko xam. ndax <laughs> loo xam ne bañ ko bindeeg léegi yàgg na lool. waaye bis bu ne. Mhm. weer wu ne. Mhm. at mu ne. Mhm. ñu indil la loo xam ne tey nga ko mës a gis tey. Uh-huh. yaa ngi koy door a gis bis ni tey. Uh-huh. waaye mosoo koo dégg mosoo ko gis. xam nga kon loolu ku ko wutal ab lim. Uh-huh. boo xam ne wutaloon nga ko bu yàgg. te booba sax dajaleeguñ ko. dajaleeguñ ci liñ ci amaguñ. booba sax xamaguñ ko. dëgg la laa nag bëgg mën a xam ñaata la. waaw ja jamono yi tamit léeg-léeg dañuy faral dégg ñuy wax diiwaan. ndax mën nga ñu dellu siwaat ci lan mooy diiwaan ak ñaata diiwaan moo waaw defee li tax nit ñi di wax nangami ton waaw yi li ko indi baat hmm. di sëriñ bi bi muy ñibbisi jógee ci géej gi waaw dafa indaale bagage yu bari lool bagage yi mbënd woon dafa bari hmm. bagage yi nag bari gi hmm. nit ñi moom liñ xamal sëñ bi mooy rek bagage yu mu am rek téere la loolee nag xëy na ñoom bañ ko seete ci ay peese yu mel noonu. Mhm. lim bi ñuy tudd ci loolu lañ ko jëlee. Mhm. d'accord lim bi ñuy tudd ñoom. waaw ci loolu lañ ko jëlee. waaye jëmmi ndax sëñ moom fo ba mu jógee gut fii dem foofa. Mhm. mu ngi doon bind te lim bi doon fii yóbbaale wu ko. ci <laughs> sëñ bi mu nekkee fii. mi ngi doon bind. te ba muy jógee fii di dem ci géej gi. yóbbaale wul lim bind. dama bële bind fële ci géej gi am na ci lu bari loo xam ne da ko faa bàyyi suul ko fi eh, dañ ko fa da koo suul andiwu ko hmm. kon nu ñuy mën a xamee loo xam ne bi nga fi jógee bind nga lu dul jeex hmm. ba nga demee ba egg foofa it bind nga lu jeex hmm. te la nga bind foofa lu ci bari da nga koo da nga loolu mu wax la ma bind la jiitu noonu mu ko defee étape yooyu mu ko def muy la jiitu dem ci géej gi hmm. loolee nangam ca nam ko waxee ci tolluwaayam mom suñu borom lam yaqbal minhu shay hmm. yàlla nanguwu ca dara hmm. noonu la ko bindee lim bind ci biir géej gi mu ne lu dox sama diggante ak ki tax ma di ko bind rek la moom rek moo xam daan ne lee ñu weesu nag ak lii sax nag seen yoon nekku ci seen yoon ci waaye ku bëgg lu la ci jariñ nag dangay ngay tàmbalee ci at moomu nga xam ne moom la nekkee gànnaar ba ni mu dikkee ci yéen ba ni nga xamante ne ni la dikkee njaareem mu ne ku bëgg a jëriñu nag tàmbaleel foofu kon lim bi mënu su ko xam ndax lam ne bu ko kenn xool sax bu ko kenn jàng sax kon nu ñuy xamee nu mu toll neexut a xam de moo tax ma ne

bés bu set nga gis kiimaan gu mel noonu kon xëy na xirug murit yi mhm. moo indi yu mel noonu te nag mhm. mat nay wattandiku sax nag mhm. ndax dafa am benn waay boo xam ne ab jàngkat tubaab la fi ma fekk fii ci bibliothèque bi ne ma waaw ma ne damay dégg ñu ne Cheikh Ahmad Bamba bind nangami ton ngeen di ko faral di ko wax waaw léegi lim ndax fii mu toll nii yéen ci seen bopp. Mhm. lim bindagun sax xamagun ngeen ko am na ay caractères yu ngeen def yu wane ne. Mhm. lii moo ko bind ngeen xam ko. Mhm. am caractère yoo xam ne lii bind ko ndax loolu dafa gun nga xam dafa gun ngeen. xàmmikaay boobu sax. <laughs> ba war a mën a xam sax moom lim bindagun ak lim bindagus. Ah. te loolu mu wax noonu xam-xam la. xam-xam la de. ndax. Euh, ba bisu tey léeg nga gis xasida goo xam ne mhm. ab diwaan lay doon léeg-léeg dugal ci loo xam ne ku koy roy rek moo ko bind waaye du doon moom mhm. boo demee ci circul jawaayir bi waaw ci yoo xam ne sëñ bi bind ko mhm. lenn ci taalibe yi ñoo ko bind yàlla dogal ñu dajale ko rek dugalaale ko ci biir te loolu bari na d'accord kon euh, maanaam xam lim bi daal moom moom mi ko doon bind rek quoi. ko moom ba fi may <laughs> <laughs> wax. waaw léegi nag li ma doon laaj léegi maanaam hmm. diiwaan yi. Hmm. tamit parce que bari na ci taalibe yi ñoo xam ne si xay na dañuy dégg diiwaan diiwaan waaye du ñu xam nu mu demee ak ñaatay eh, xaside mooy ne ci diiwaan ak nu ñu ko composé ak nu mu demee daal. xam nga diiwaan. Hmm. li firi ci arab mooy lu wëndeelu nii mooy loo xam ne. Uh-huh. Eh, bu ñu tegoon fii ay fauteuil yi ni tëddee nii. day mel ni duñ mën a xam ban moo ci jiitu. Mm-hmm. ndax dafa dafa toftalowut mm-hmm. diiwaan nag. Mm-hmm. ci luxal arabiya noonu lay firi mooy loo xam ne. dawaa wiin lay doon ay yu bare bare yoo xam ne diiwaanu nangam. Uh-huh. diiwaanu nangam. Uh-huh. diiwaanu tey boo dikkee dañu lay wax ne la ah. تبير بيبليوتيك بيك هذا ديوان سلك الجواهر بي تربي نعم. موي ديوان بيغا خام دال تربي ني واخ سلك الجواهر موتي نيك آه. ديوان سلك الجواهر ديوان لا نلا بي موي ديوان القصائد المقيده بالايات القرانيه بي موي ديوان بيغا خامني لب لو بند تتنكو ci alxuraan. Mhm. moo ci nekk nga xam ne day indi aw bayit waaw bayit woowa mu décortique ko ay araf mhm. araf wu ne mu bind ci bayit mën na caa bind benn mhm. mën na koo bind ay yoon ci benn benn araf léeg mu def ko kon muy kooku itam dib diiwaan nga demaat ñu ne la diiwaan nuuru daarayni xanaa moom salawaatul xams rek salawaat salawaatu al nabi rek moo ci nekk. ci biir boobu diwaan. dawaawin yooyu nag yëpp. Mhm. moo tax ngeen di dégg ñuy wax diwaan. ndax bu njëkk. Mhm. naar yi ci seeni dañoo fonkoon woy bu ñuy woy dañuy toog nii wër. Mhm. toog nii. kii toog nii kii toog nii kii toog nii sooraaw yëpp wër nii. ñuy seet kan moo ci mën. bu ñu mosaan dem ci seen marché boobu ñuy tuddee Ocass. waaw nga xam ne moom lañ tuddee fii. dëgg la foofa doon toon euh, marché. maanaam niñ ko mën a tuddee ñun ci suñu jamono jii léegi. Mm-hmm. mooy foo xam ne barabu compétition la. Mm-hmm. bu ñuy seetee ku dàqa way. Mm-hmm. gën a rafet way. foofa lañ ko daan defee booba ay diiwaan la ñuy def nii di wërale. toog ñoom soxlaa toog. ba kenn ci jóg. bañ ne kii mooy ki nga xam ne moo jël raaya bi ah. ci diiwaan boobu loolu nag ci lañ jëlee dawaawin yi nga xam ne moom la ñuy wax ba léegi si ah. loolu nag ci marché bu ñu daan wax occas mm-hmm. wala ci barab bu ñu daan wax occas mm-hmm. nga xam ne moom la moom la ñuy tuddee marché bi moom la ko sëñ Fallou tuddee mm-hmm. moom ba euh, ngir tur woowee loolee foofee lañ daan defee loolu d'accord kon diwaan yooyu rek mooy li nga xam ne moom moo nekk fii ci biir daara ji bari na ci diwaan yooyu nag du caageen noonu la ko sëriñ bi defee woon waaw diwaan yi ma tudd nii mhm. du caageen ndax danga nga fekk diwaan boo xam ne mhm. tey euh, dajalewuñ ko woon ci jamono sëriñ bi mhm. Cheikh Cheikh Abdoulaye radiyallahu anhu mooy ki nga xam ne moo ko dajale ba def ko ay dawaawiin yu mel noonu d'accord waaye doon toon loo xam ne amoon na du yëpp donte am na yu ci amoon waaw waaw fulkul masoon daal moom naka ji moom sëñ bee ko dajaleel boppam lépp d'accord fulkul ah. masoon sëñ bee ko dajaleel boppam hmm. kenn yokku ci dara kenn wàññiwu ci dara ci bii fi ne hmm. bi nga xam ne moo nekk fii ci noonu moom amul yokk amul wàññi amul wàññi kon noonu la demee d' accord d' accord waaw léegi tamit maanaam bi may jeexal rek laataa may jox sañ sëñ si sëñ Ibrahima euh, euh, ñu bëri tamit dañuy jàpp ne maanaam sëriñ bi li mu bind Euh, salaatu comme dane salaatu sita bi mati sita bi dañuy jàpp ne maanaam juróom-benn weer yi da ci daan tagg yonent bi saa salaam juróom-benn weer yi ci des da daan julli ci moom kon xasida yëpp boo leen boole tagg la ak julli ndax am na leneen lu bokkut ak loolu. waaw dafa gën a fonk yooyu rek. Mhm. Mhm. ñaar yooyu. mooy aw sasam. yooyu mooy asalaatu. Mhm. ak mata ñoom ñaar yooyu daf leen a fonk lool ndax salaatu bi hmm. mooy dafay indi salawaat yëpp siira siira yi am ci salaatul salaatu al nabi yëpp hmm. yu ci bëree bëri da koy indi yoo xam ne sax nit ñi xamuñ ko woon ci salaatu al yoo xam ne gaa yi gën a foor ci wàllu salaatu al nga xam ne xamuñu ko woon nit yàlla yi nga gis nii yëpp hmm. boo boo doon téeméer

digg ba day doon salaatu. Ah. muj ga day doon salaatu. Ah. <laughs> waaw moom moom. Ah, ci biir seetal xasida yëpp nag. waaw lii ma la wax rek day tàmbalee ci salaatu. digg ba mu def ko ca. mujj ga mu def ko ba nga xam ne ñi ñi nga xam ne dañ doon seet. Mm-hmm. mu may yisaat yi maanaam mm-hmm. nan la ñuy xamee caractère mbindum sëñ bi usluba. waaw na yàlla yokk leeram ci alaxira. Mm-hmm. sëñ Moursala Mbacke sunu xarit. la woon doomi si Cheikh mhm. la borom mhm. xam-xam bokk na ci ñi njëkk liggéey ci wàllu boobu nan la ñuy xamee mbindum sëñ na ci téere téereem bi nga xam ne moom la bind ci sëñ wane na ko ci biir loolu benn la ci caractéristique yi ñu koy xàmmee salaatu yi ah. nga door a dikk rek ci uslub beeg nañ koy xàmmee yooyu yëpp loolu day gudd mhm. waaye salaatu bi moom matxe bi itam muy matxu rasulullah مو أقول لك هم تلاقي في خدمه ما نام وقت هنا تفسسوا ات مو ام لوم ساسو تي لا لا نياتا لومي تاغ يونت بي عليه الصلاه والسلام دا موم واخ تي يونت بي دافكو نيه اها واو لومي واخ ني تاغ ناكو فلي تي ليبر ليبر فيل واو مدحن به وانا مدحن به وانا به an kulli wali maanaam tagg woo xam ne daf cee damoo daf cee wone bu wér ne tagg naa yonent bi tagg woo xam ne wàllu yi gën a mag sax buñ bëggoon a tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam dana jafe ci duñ ko mën kon wàllu matxu mhm. eh, mooy li nga xam ne moom ak salaatu daf leen gën a fonk rek mhm. waaye du caageen ci loolu rek lay bind bind na ci lu ne mhm. boo demee ci fiq bind na ci boo demee ci tasawuf bind na ci boo demee ci yoo xam ne sax nit ñi xamuñ woon ne sëñ bi bind na ci waaw muy almazahib yi nga xam ne dafa am ci adduna si waxuma la yu fiq yi sax waaye mazahib yi nga xam ne sax day wax ci yeneen ak yeneen ak yeneen muy mu'tazilaak jabriyaak yooyu yëpp daf ciy bind d'accord amul daanaka fànn goo xam ne da ko seet te fekk sëñ bi bindu ci xanaa da koo gisul <laughs> fànn yëpp la bind kon bu waxee ne salaatu sitta bi mat te sitta loolu aw sas la uh-huh. aw sas la bu mu wax ne moom leneen lu mu mën a doon xaw ma nu muy demee waaye lii moom danaa ko def d'accord aw sas la rek <laughs> <laughs> waaw waaye dana béy waaye tool bi lu ne ngi ci biir uh-huh. tool bi moom lu ne ngi ci biir uh, boo gëstoo rek gis ko uh-huh. loolu nag xasida yi dafa bari ay njëriñ mhm. yu bëree bari yoo xam ne ñi koy jàng war nañ koo gën a xam ndax dafa dafa dëxëñ ci biir ay asraar yoo xam ne mhm. euh, bu nu ko xamoon danañ ko gën a fonk wallaahi ay mhm. secret yu nekk ci biir ndax boo xoolee benn téere bu mel ni Nuuru Daarayni nga di ko jàng da ngay jàng ab bayit mhm. mu tudd ca yonent bi alayhi salaatu wasalaam tudd ca yàlla ci aw turam woo xam ne yow tur woowu sax maanaam maanaam xamoo ko xamoo mooy lan tudd ca itam benn jikko ci jikko yonent bi alayhi salaatu wasalaam baa mu tudd ca wenn melo ci melo alxuraan waa ndax yooyu muy boole nga xam ne da gis mu tudd turu yàlla fii gis mu tudd ci tur yonent bi alayhi salaatu wasalaam fii tu gis mu tudd ci alxuraan tur woo xam ne day dëppoo ak la muy wax ci loola ndax dañoo defee ne rek tur yooyu muy tudd neexal way wi rek la ci jublu ah, ah. ak a soreeg loolu ak a neexal way bi kese ah, déedéet ay secret moo ca ne yoo xam ne bu dee tur woo ñu ca tudd boo koy jëfandikoo di ko gis boo amee positif mhm. ba nga koy jàng wala yow mi nga xam ne yéen koy jëfandikoo moo tur wa nga xam ne ab sëriñ da koo jox ab taalibeem mhm. ne ko demal def ko nangami lim mhm. mbaa muy euh, mu war koo jàng njàngami lim yooyu bu ko jëfandikoo ci bayit wi jëfandikoo ci xasaayit di résultat bi mu daal di koy gis saa si amul sax benn sikki sàkk nag dafa laaj kon nit ñi xam ne mhm. loolu muy wax ne mhm. sama xaside yi mhm. kawe na cheikhu tar tarbiya mbaa sama xaside yi kawe na cheikhu tarqiya ba dañu war a xool cheikhu tarbiya ak cheikhu tarqiya lan la ñuy def ci seen taalibe lan la ñuy digal seen taalibe ba tax ñu mu mën leen eggale fa ñu egg ci yàlla mu ne nag xasaayid yi faaqat suyuqa tarbiya wa kulla xayrin huwa suyuqa tarqiya sama xaside yi secret bi ci ne bu ngeen ko xamoon la ab sëriñub tarbiya di def ab dongoom ba defar ko ba mu egg ci yàlla mi ngi ci biir xaside yi faaqat sax la wax maanaam ëpp weesu na loolu maanaam la sëriñub tarbiya bi di def li xaside gi di def moo ko raw secret bi nekk ci ah, biir ak degré bi nekk ci ci lu wér waaw nga gis ndax loolu wax na ko ay ci ci ay bayit yu bare bare bare bare waaye wax na ko ci olof ba tey hmm. daana wax ne mag ñi danañu nettali nee nañu sëñ bi daana toog ba yàgg mu ne bu leen sikk sàkk ne hmm. sama xasida yi ñoo ma gën a gaaw fuuf oh. ci defar nit eh. li may gaaw gaaw sama xasida yi ñoo ma gën a gaaw ndax léeg-léeg ma gis ci sama biir. koo xam ne xaw ma turam. Mm-hmm. xaw ma turu ndeyam xaw ma turu baayam. Mm-hmm. ma mu defaru ba mel noo xam ne am salaax nekk saalix nekk muslim defaru ba noppi di defare ah. te man musuma ko gis eh. bu ma laajee ne waaw kii fu mu jaar ba egsi fii ñu ne ah, moo ne moom de sa xaside yi de ci la nekk suba mm. ak ngoon di ko mm. jàng di ko durus ba loolu moo ko egsil ci martaba eh. bi kon loolu. waaw xasida yi foor na. Ah, foor na loolu. kon xasida yi day defar. sëñ bi ah. di defar te nee na xasida yi gën a gaaw. Ah, ndax nit dana defar lu ko tubaab bi defar avion. avion gën a gaaw tubaab bi defar oto. oto gën a gaaw gën a gaaw kon. loolu yëpp. Mm-hmm. dafay wone dara ji xasida yi ak maqaama boo xam ne am na ko. dëgg la ñu war ko gën a xam. dëgg la. al